fiir a tax mu def ko wala. mais am na yoo xam ne kese na fiir bi ko jàppee. Mhm. alors saa yi waa ay affaire léegi jàpp ma ay gan mais balaa onze heures maa ngi ñëw. suñ ku la ku ñu ñëw nag balaa onze heures nag wax dëgg yi yàlla ngay ouvrier yow dëgg yi jàpp ah léegi yow yow non mais. Mhm. balaa onze heures man maa ngi comme yow maa koy waaye maa ngi nii di daw nii di egsi nii yaa ngi dégg di dawal nii maa nii di dawal nii léegi ma egsi. foo nekk nii bu ma ko maa ngi woon nii kan ne yàlla ah maa ngi génn ko ji loolu kan ma ko ok c'est bon. noonu ma dem ak kër gaare euh, si laa demee dugg sama kër. sama day liggéey quoi. Mm-hmm. nga ni lii fiir la wala réew la lan la. non kii du kii du fiir rek. kii réewale la quoi ak soxor. réewale ak soxor. ak soxor quoi ah. ku ba déglu waaye. Mm-hmm. waaye. Mm-hmm. d'accord mais daal lii réewande la daal. soxna si bi muy daw lan la yóbbaale. sama téléphone ak sama ñaari téléphone yi. benn ñaari iPhone la. iPhone boobu bu may def lu may liggéey ci laa mooy def. ak sa xaalis. ak sama xaalis waaw.